jàmm ak suturam amina maa ngi lay maa ngi lay lay nuyu bu baax di ñaanal iya, jàmm di ko ci yow di nuyu gars ñi seetaan yëpp ci live bi à travers compte bi vraiment di ñaanal di ñaan réew mi yàlla fi yàlla gën a dolli jàmm. Mm-hmm. vraiment sa introduction am na solo. Mm-hmm. am na solo am na solo trop trop trop mais làmb nag Fadam coow la sant. Fadam làmb coow la sant man wax ji vraiment. waaw du mën a ñàkk. parce que am na ci yoo xamante ni sax vraiment di ci mais tuuti dañ ciy joxe rek suñu contribution parce que ku bokk ci gétt gi naan ci meew ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi donc euh, affaire yi. Mhm. man dama gis ne malentendu am na ci benn parce que mal entendu bi fi ma ko war a déggee parce que problème bi yépp mhm. il faut que ñu bàyyi xel que ne man ci ni ma ko mhm. jàppee du caagi ne Lutte TV dafa am problème ak ban tamba TV ci li ma dégg ñu wax parce que ban tamba TV dafa signé contrat ak Elimane Lutte TV bi dafa signé contrat ak Eliman Eliman Lo promoteur bi donc ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk da nga yor sa contrat mhm. kon foofu coow amu fa ci ñoom ñaar parce que promoteur bi moo yor mhm. produit moom moo ko jaay ñaari structures yi différent mhm. donc foofu su fekkente ne tey man am na koo xamante ni dinaa ko joxaañ baaraamu tuuma promoteur bi laa indi parce que promoteur mënoo tëgg sa événement ba pare ñëw ba ca bis ba coow lu mel noonu am fa nga naan contrat bi ma signé loo xaw ma clause yeeg ay waxu picc la loolu loolu ay waxu picc la donc loolu man gisuma ko photo mm-hmm. bantamba tv lan moo tax nag ma ciy wax mm-hmm. beus sama xarit la c'est un frère parce que nit boo demee ba mm-hmm. fréquenté këram di fa lekk donc am na relation yu ngeen jeex père bekaay sama père la boo xamante nii avant mu doon tuxu si ñaari tali di dëkk maris laa ko xam booba yi yëpp xewul ay Modou mbay yoruñu sax micro di wax mais dafa fekk nak ne deug ku ko fekk rek canga te xulul àq rek mhm. waloon kaana mu ran nak donte dañ lay ray dagay wax deug parce que damay def un ah. exemple dev lamb diaspora wala ndeysaan bi mu fi ñëwee duggal ci heure ba jotutoon ñu mujjoon ko crypté kérok dañu def ci mhm. live dama taxaw devant tout ñuy seetaan ñëpp grandeur ak respect bi ma am ci mom lim doon sama gayan ma ko grandeur ya tool parce que yaa def loo xamante ni defuwul donc te aussi mhm. leneen amee man ci sama xalaat laa wax parce que doonul ne man li ma wax mooy compte wala loolu moo nekk mais man ci sama gis-gis man ak ni ma analyser affaire yi mooy cri de cœur bi Beuz def sax jaru ko woon parce que lan moo tax jaru ko woon mhm. mooy su fekkente ne wax nga ci contrat bi ban Bantamba TV yor contrat nga yor contrat donc Bantamba TV defu la dara mhm. su fekkente ne problème saalu régie bi ñuy wax ci arène nationale amul benn mhm. saalu boo xamante ni ci arène nationale dañ faa bind turu tamba tv wala turu lit tv ne ñoom ñoo ko war a occupé vraiment nag bu dee yàlla dëgg rek la bëgg su fa bës jiitoo mhm. moo ko moom su fa tamba tv jiitoo moom moo ko moom aduna mhm. nag dama lay bëgg wax waxuma la lamb de manière générale waaye aduna ku fi bëgg a léewtoo ku fi bëgg a bëre di nga léewtoo batas loolu mënul ñàkk fadam ñun fekkee nañu coowal. 2STV mhm. ak RTS 1 ci Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux. ñaari télé yëpp kenn ku ci nekk ñoom indi sa contrat. balaa coow yàgg na teg sa plateau. ñaari mu ngi mu ngi mu ngi gën a tafaataay bi bu mu dindi airport yi dinañ dina dina romb coow bi. coow bi ci stade Léopold Sédar Senghor. te lépp ci jàmm la mucc. Lutte TV bu mm-hmm. mm-hmm. fekkente ne dafa yaakaar ne mm-hmm. gars yi dañ koy bàyyi mu ñëw ci làmb ji liggéey ci aisément mi ngi nax boppam bu dee loolu lañ prévoir oon nañu rangé waat seen ay kaaka ñu dem seeti leneen lu dul làmb parce que promoteur et galgal ci promoteur yi lañ jëkkee faram ñaata yoon promoteur waxaale ak mbër ba jël avance di ko yóbbu ñu détourné mbër beneen promoteur dëgg ko àdduna nag loo gis jàngat la Fadam saa boo bëree combat jaar côté boobu dóor la nga daanu da ngay jóg faxasu jàngee ci bu ëllëgee doo jaar côté booba mais am na ci coow yoo xamante ni parce que am na ci loo xamante ni pour man tekkaaral gi mm, mm. day gën sax wax ji man man man tafakan ji man nangu naa ku nekk wax mais man Ibrahima Faye Beuz man su ma sañoon du waxati ci làmb xam nga tax loolu. Mm-hmm. day koo xam ne nii dafa am ay ñoo xam ne dañ ko def référence. Mm-hmm. ku mel ne Alaaji Bekaay Mbay doo ko dégg mu wax ci loolu. ndax li am solo ba am solo mooy làmb jëm daa am Ibrahima Faye bës daa am fu mu fekk làmb ak fu mu ko yóbbu. ba Alaaji Bekaay Mbay daa am fu mu fekk làmb daa am fu mu ko yóbbu. te ñoom ñaar ñëpp ay monument lañ ci làmb te ñoom ñaar ñëpp. ay investissement ba pare dama leen wax TV ku nekk rek da ñëw jël lamb am foo ko bëgg yóbbu gars yi dañu mm. am considération bu mag a mag a mag a mag parce que Lutte TV Ibrahima Faye bi mu ñëwee ak léegi Fadam yàggul waaye am na fu mu fekk làmb am na fu mu ko yóbbu donc ku mm-hmm. am mérite la mais père Bécaye Mbaye il faudra que nit ñi admettre mm. reconnaître que ni mm. moom tamit liggéey na lu bare bare baree baree baree baree bare ci làmb donc nag respect bu Lutte TV mérité rek. vraiment Bantamba TV mérité respect bu toll noonu wala bu ko ëpp. parce que wax dëgg yàlla am ku la jiitu aussi ci néeg bu lëndam boo ci duggee moo lay wax fi ngay toogee. Mhm. léegi nag affaire bi affaire de business la fadam boo kenn ku ci nekk nag nañu waxante dëgg da ngay jël yóbbu sa kër kenn ku ci nekk da ngay xool. Mhm. nan la affaire yi gën a mën a ñëwee ci sa boor parce que concurrence na parce que yow fadal m yow fadam mënoo yor label di produire ma yor label di ñuy mhm. xëccoo benn produit ba pare ñu bëgg di raayante concurrence dafay yàgg ci làmb c'est làmb nag malheureusement làmb nag malheureusement fada moo nekk benn fo moo xamante ni boo ci mhm. nekkee il faudra que nga pare mhm. pour di recevoir ay coups ba pare tamit di ko joxe parce que milieu làmb moo bindoo noonu millier làmb milieu làmb moo demee noonu loolu danga koy commencé ka ca porte ba la commencé yow mi organiser sa làmb di teg nit ca porte ba boo xefee mu jaar ci sa kaw Mm-hmm. ba ci mm-hmm. mbër mi wàcc ci ci promoteur yi ba ci tëggkat yi lépp donc mm-hmm. làmb lépp boo ci xasee ba dugg boo ciy dugg moom il faudra que nga fort mentalement armé wu xam nga ma la prêt à recevoir des coups parce que coup ba fépp la am waa diaspora bi di ma déglu am na ci ñoo xamante nii tey da ngay nekk diaspora bokk ak sa nawle sénégalais bokk ak sa nawle sénégalais ngeen bokk benn entreprise bu ngeen di liggéeyee sa moroomu sénégalais boobu nga xam ne buñ tëjoon dëkk bi yéenay bokk ñibbi di la galgal ba ñu xëy dàq la fa nga doon liggéeyee yow te yéen ñaar yéen a bokk fenn fu ngeen jóge loolu yàgg na ci àdduna l'essentiel que ne mooy xam nga li ngay def mën nga li ngay def te xam nga yoon wi mais liggéeyal après la reste nit ñi ci boppam ñoom ñooy apprécier débu la de waaw ma ne tabaakaan ji loolu nga am na solo te làmb dafa nekk benn foo xam ne nii man yaakaar naa ne ak lépp lu métti métti fi làmb toll concurrence da koy gën a defar concurrence boobu noonu ci làmb mënut a ñàkk waaye man bugguma ay ay ay ay ay ñu xaw am fenqoo tuuti rek ku ci nekk rek di génne kàddu bu ñaaw ci beneen côté te da ngay gis ñoo xam ne nii ñu ngi ciy wax loo xam ne sax maîtriser wuñ ko te li ëpp ci coow li du structure Bantamba TV ah, du structure li TV promoteur bi moo dugg ci lu mu xamu promoteur bi moo dugg ci lu mu xamu bëgg kombaam réussir fu ci nekk ah. mu dem fa signé lu fa ay contrat taxaw pour làmb mën a réussir ndax loolu tey jii du tax bu ëllëgee bës gën a xam fu mu teg tànkam ndax loolu du tax bu ëllëgee Bantambaa dama ne ñi nga xam ne nii. tey jii dañoo gën a xam fu ñu. li ma la mën a expliquer foofu la làmb toll. Bantamba TV ak Lutte TV kenn ku ci nekk ba nga ñëwee ca làmb ja da yor sa ay contrat yu leer donc promoteur fi mu ne nii tey bu ñu toogoon tey war a wax ci xam xam nga ci kan lañ war a laaj ci promoteur bi nga xamante ni moom moo tëgg événement signé ñaari contrat yoo xamante ni. nee na mhm. maîtriser wu ci dara. mais Bantamba TV li nekk ci seen kayit yoon may leen ko loolu lañ ñëw def. waa Lutte TV li nekk ci seen këyit yoon may leen ko loolu lañ ñëw def donc ñaari structures yi amul problème problème amu fa problème amu fa nañ waxante dëgg problème amu fa gisuma lu am gisuma problème problème amu fa te fi làmb jëm yaakaar naa ne tey jii alaaji Bécaye Mbaye am na fu mu fekk làmb ak fu mu ko yóbbu yaakaar naa ne ñi alaaji Bécaye Mbaye daan dikk micro ci làmb guddi yii ñu toll ñu kii làmb Sénégal buñ demee ba ku mel ni Fadam mën a am ci lamb yaakaar naa ne Alaaji Bécaye Mbaye la gis mu rafetal ko ba a am rêve pour mën a téye micro ci làmb di wax ci làmb yaakaar naa ne am na promoteur yoo xam ne tey jii bu ñëwee ba mën a tëgg combat deux cent millions yàlla Ibrahima Faye bës la ndax moo leen téyel leneen lu raw sponsor te làmb lan moo tax du ma dépassé jii ku ci nekk mooy dama fekk ci làmb ke promoteur tëgg làmb mhm. benn télé yor exclusivité bi yeneen télé yi ñëw ñu téye leen ci buntu ba ne du ngeen dugg moo tax yii nii yëpp ay détails la dama lay wax benn affaire làmb yëfu ceddo la mhm. làmb amut yàlla amut yonente bi amut xaala rasulullah non lu leer laa la yëfi la bu jeexee nag jeex na waaye bu jeexee jeex na ku na ñu bokk nay bokk baay amut xaala rasulullah mhm. amut amut yàlla amut yonente bi yëfu ceddo la kenn ku ci nekk da ngay wax taxaas jëmale sa boor ah man loolu laay a Ibrahima Faye de parce que vraiment man il fa que ma parce que parce que amoon na fi amoon na fi nii lu mel nii kerek bi mu dalee Grand Yoff mu taxaw live dal ci kaw liggéey bi ñun ñëpp dañ man damaa taxaw wax na ko Grand Yoff non yow yaa tooñ. Mhm. non yow yaa tooñ Grand Yoff yaa tooñ. donc tey aussi buñ gisee lu mel mhm. noonu aussi vraiment il fallait que ñu wax ci parce que. Mhm. ñun ñun nday ji feex rek lañ leen jaaxaan naay rek lañ daal làmb moom boo ci nekkee. booy ñëw bu bu dee a ustaas nga jikkoy ustaas nga bàyyi ko sa kër ga boo ñëwee indi jikkoy ceerno tool jikkoy ceerno nga indi ba baa nga fay génn solaat sa mbubb ustaas nga du mën a ñàkk yàlla yàlla doon jàmm la coow mais mais mais mais mais mais tafakaan yi lii sax day tax Bantamba TV lépp luñ doon def ci làmb dañ koy gën a yokk li day tax li TV lépp luñ doon ci làmb dañ koy gën a yokk ndax yaakaar naa ne ku ci nekk ñoo bokk lay bokk baay. lamb ci jël ñu diggante Beuz ak ñoom Père Bekaay diggante Sikaab ñaari tey tey bu Beuz yuuxoo ñu dégg leen ñoom bu ñu yuuxoo Beuz dégg leen ñoo bokk nday ñoo bokk baay ay doomu Grand Dakar lañ. yàlla na jàmm yàgg ñu jàll ci leneen ba nga laaj ma leneen. waaw ah, walaay ndeysaan walaay ndeysaan waaw li ma bëgg a dégg nag mooy alaaji Tapha Kandji yaakaar naa ne euh, euh, fo ci combat bii nga xam ne Sénégalais yëpp ci lañ jëm. ci loolu la lay jël benn euh, yaakaar naa ne tey jii loolu lu am solo la yaakaar naa ne bu ñu génnee ci Ibrahima fay Beuz ak nga xam ne nii mooy waa Bantamba TV. waaw waaw waaw. tey jii euh, Alaaji dafa kanji dafa mel da ngaa jàpp. déedéet maa ngi nii toog. xam nga da ngay ceddo dama laa xam. Mhm. xam nga tey jii yaakaar naa ne bu ñu ci diggante Bantamba TV ak nga xam ne nii mooy TV. di mhm. diggante yoo xam ne nii mënuñoo ñàkk ci làmb. ñoom suñuy référence lañu ay nit lañ yoo xam ne nii ñun dañuy jàng ci ñoom métier bi. Mhm. te loolu mhm. tey jii lu am solo la ñu ngi leen di ñaanal. buzz mhm. suñu kilifa la. kër El Hadj Bécaye suñu kilifa lañ. man ki may gën a waxal rek mooy sama buzz la xam tax buzz. buzz dafa nekk nit koo xam ne nii ci làmb. bi mu ñëwee dafa am fu fekk làmb ak fu ñu ko yóbbu te nekk xale bu ndaw. mais buzz bu fekkee yaa ngi may dégg ngir yàlla ak yeneen bi bul communiquer yi mm-hmm. ndax yow mm-hmm. référence nga ci làmb mm-hmm. yow ni ku àdduna bépp di bàyyi xel nga boo fekk nag kuy def lu baax kuy wax lu baax chaque jour saa yu communiquer rek xam nga day communiquer un fond du cœur te loolu mën naa ñàkk bu mu muy gaaw di wax ndax ñun dañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax nit ku baax la alaa gi tabaakaat fi ñuy ñëwaat rek fu ñuy ñëwaat rek fu ñuy ñëwaat